asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, ci bëgg def tuuti kàddu nuyoo ak cant rek jëmale ko ci sëñ Fallou mais ndax moo waral sunu teew fi tey tàmbale cant gi nag ci sëñ Mountakha Bachir mi nga xam ne mooy kilifa ak yoon gi di nuyu nag di sant njabootu sëñ Thierno gépp sëñ Omar di wax ne lii yàggoon nañ koo bëgg ndax suñ suñu chaîne bi xidma 28 la tudd xidma moom xam ngeen ko 28 mooy arafu tubaay yitteem nag ak yëngutoom mooy fépp fu xam ne sëñ bi dem na fa mbaa ay gaayam dem fa ñoo xam ne moo leen defar mel na sëñ Omar ñu dem fa taataan ca uh, barab ba luñ ca mën a xam bu ko defee ñu bokk bokk taalib yëpp ndax am na ci barab yoo xam ne dem fa yokkute rek lay doon dëkk bi ne man tey laa fi door a ñëw waaye yëg naa ne fu ñu defaroo la alhamdulilah yàlla na yàlla bokk mboolu defar euh, ñu bëggoon ko nag ci jamono sëñ Thierno waxoon ko sëñ Saliou waaye yàlla ñëw dogalam ba ci sëñ Fallou mii lañ ko mën a amee kon dañ koy sant di sant njabootu sëñ Thierno gépp maa ngi ànd ak nag sëñ Alaaji ñaŋ mooy journaliste bi ak Xaadim juuf di caméraman bi bëgg a seq yëqëyee waxtaan wi euh, di wax ne sant rek lañ ci am gu wér goo xam ne kenn xamut nu mu Eh, jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen di santaat bu baax di leen gërëm eh, di leen jaajëfalaat bu baax a baax eh, ginnaaw bu ñu nuyoo sëñ ba siir ñu ngi ñaan suñu borom guddal aw fanam mooy ko ak kattan noonu tamit la ñuy nuyoo bu baax sëñ Amdi Mbodj Mbène Fall mi nga xam ne moo fi toog toog ay Mame Cheikh Ibrahima Fall di nuyu bu baax. E sëriñ Abo xalifa sëriñ Fallou di nuyu bu baax sëñ Fallou Fall moom sëñ Modou Aminata Fall ak mboolem njaboot gi e bàyyiwuñu kenn macha allah tey nag ñu am mbégte ak kontaante fas yéene ñëw fii tey e ci Galongal bu ñu nee Galongal nag sunu xel day dem ci sëñ sëñ Thierno Galongal macha allah. comme ni ko sëñ Balla waxee rek macha allah ñu ngi koy nuyu baax di ko jaare sëñ Balla Mbuub di nuyu baax sëñ Xaadim sunu caméraman macha allah dama koy wax sëñ Xaadim borom Pastef tey nag yéen a ngi ànd ak seen xit euh, seen site bi di Khidma 28 euh, site bi nga xam te moo leen di toppal euh, tànki sëriñ bi macha allah tey nag ñu jàkkaarloog sunu sëriñ yi sunu kilifa yu tedd yi macha allah di nuy bu baax sëriñ Fallou Mbacke sëriñ Basirou sëriñ Soye bu Mbacke. macha allah ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziare comme ni ko sëñ Balla waxee macha allah tey nag li ñu bëgg xam mooy kan mooy sëñ Omar. kan mooy sëñ Thierno Gélo Ngél waaye nag xam naa bala ñoo sore rek dañ lay jox kàddu gi eh, kan mooy sëñ Basiiru asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jëlee li mbokki taalibe yi leen di kenn ku ne sa tur ak sa sant ci ci nuyoo bi noonu ko waxee rek Cheikh Mouhamadou moom sëñ Basiiru sëñ Maam Balla Mbàkke mi nga xam ne nii mooy moom sëñ Omar ak sëñ Fallou Mbacké mii na nga xam ne mooy sëñu sëriñ doomi sëñ Thiam nuyu sëñ son yi ba suñ rakk Basiru mii moom euh, amul solo ab dong rek la dongam sëñ Fallou mi waaw nag loolu moom doy na rek ab dong rek la lu ci am solo mooy li ñuy bëgg a wax te fas ko yéene wax di nuyu sëñ Balla Mbuum mi ak yéen ñi mu àndal ngeen ñëw fii ci Guelongal Daaru Sakkoor loolu sañ Fall wax ci njëlbeen gi nag waaw loolu moo ci nekk bu dee mbirum waxtaane sëñ Omar doomam a ngi fi muy sëñ Mame Balla bu dee sët yi sëñ am dee ngi fi ak ñeneen ak ñeneen bu dee mbirum sëñ na nag moom loolu ñu ci wax léegi sëñ Fallou ngi ni mooy kilifa gi liñ ciy wax ak su néew danañ ko wax ci ndigalam waaye bu ñu noppee li ngeen ci wax bala ñoo tëj danañ ko jox mu wax ci ay kàddu lañ cay wax ak moom lu wér lay doon waaye lu wóor lay doon suñ Ceerno moom ku baax la woon ku bëgg lu baax la mbokkum ñëpp ndax suñu Omar mi waajuram daa baax loolu rakki sañ Bamba suñ moroon Anta Sali mi waajur sëñ Bamba suñ Mbàkke Ibra ma ca topp muy waajuru sëñ Omar Mbàkke mi yii nag di gelongal gelongal lañ koy waaye daaru Sakkoor la tuddum daaru Sakkoor waaw daaru Sakkoor ke sëñ Omar Mbàkke sëñ Omar bi mu fi nekkee ñu wax ne sëñ Bassirou ko joxoon fii te biñ ko koy jox yàgg na trent 1934 lañ ko ko jox 35 ñu goor ko 36 ñu toxu si fii yooyu yëpp moom suñ sëñ Thierno leeral na ko ci rajo yeeg télé yeeg yëpp ba ñu bari dégg nañ ko waaw dañ cey wax ko si néew moom di sëñ bi wax rek ndigal moom am murid ndigal rek lay jëfe te jóge Tuubaa ba fi ngir loolu lañ cey xamal ko si néew waaw ñu wax ko ca waaw dañuy wax ne sëñ Omar dëkk bu ñuy wax ñaaxin la ne foofu ci wetu njaareem Euh, ay donga yi nekkee di jàppanteeg pël yaag yooyu nag sëñ Basiru jokk mu ñëwee bi mu fi ñëwee nekk fi nag moom sëñ Omar 36 ba 53 loolu yàggal bi mu fi jógee nag sëñ Moodu Mbakke mooy ab taawam nekkoon na fi moom it 1953 ba 99 bi mu fi jógee nag sëñ Thierno Mbakke fi yàlla dogal na bi fi sëñ Modou yi nekkit mook sëñ Thierno bokk ñoo fi bokkoon ne ak ay magi sëñ Thierno sëñ Thierno am nay mag ndax sëñ Modou ci mag waaye sëñ Mahamadan moo ci topp fii la ne woon ginnaaw bi la fi jóge dem sanc Gosaas moom la ñuy wax sëñ Dan Gosaas sëñ Abdou Karim it rakki sëñ Modou nekkoon na fi waaye sëñ Modou da koy jëloon yóbbu ko ngaay mu ne nekkal ko foofee sëriñ Basirou doomi sëñ a moom fii la ne woon waaye dafay jóge dem Daaru Minam kër sëñ Omar ba tey mi ngi nii sëñ Thierno nag moo ne woon fii moom nekk fi nag ak sëñ Modou di ànd ak moom di ko liggéeyal ba sëñ Modou gërëm ko gërëm boo xam ne ki yéeme na amoon nay mag waaye ñun ñëpp dañ koo jiitu dañoo nelaw ci kanamu sëñ Modou moo tax bi sëñ Modou nelawee yàlla dogal moom moo wutu sëñ Omar moom sëñ Thierno 99 euh, ba 2022 muy daaw bi mu ko wuutal bi yàlla dogalee mu nelawal sëñ Fallou Mbacke mu baax mi moo ko wutu ànd ak ay rakam fa sëñ bi newoon la ne la sëñ bi def loon def lay def yoonu sëñ bi jaaroon la jaar ànd ak ay rakam ak dafa fas ko yéene waaye lépp nag mu ngi koy sëñ Mame Balla mi nga xamee ni mooy kilifa ak njabootu sëñ Omar moom ma nga Touba waaye këram a ngi nii seen ginnaaw te dafay ñëw yooyu yëpp nag liñ ciy wax lépp ndigal lay doon rek ci ndigale kilifa yooyee lay doon sëñ Thierno moom noonu ñu ko waxee ñaari waajuram yëpp nañu baax muy sëñ Omar Mbacke moom yi nga xam ne doomi sëñ Mbacke Ibra sëñ Mbacke Ibra doomi Mame Balla mooy caatu Mame Maram soxna Maguette Ndiaye mi waajur mu jigéen it Mor Ndiaye xaree na siiw na lool ci réew mi Mor Ndiaye la tuddoon waaye bay bay bay gum bay daan bay sëñ Tuubaa aw jiwu di ko ko yóbbul loola waral ñu di ko wax Mor Ndiaye xaree na ay ngi fi baax lool mangoo jàmm yàlla lool mangoo dimbalee lool di ay jullit noonu lañ mel ne ña nga Ndakaaru Mor Ndiaye xaree moom nag mooy moo jur waajuru sëñ Thierno bu jigéen. bi mu nekkee fii ak sëñ Omar it soxna Maguette Ndiaye la tudd am na ñaari rakk yu jigéen yu bokkal ndey ak baay ku njëkk ka soxna Khady Ndiaye la tudd moom lañ joxoon sañ Mor Talla Fall moom maam Cheikh Ibra Fall mu nekk foofee ca Xuru Mbàkke foofu la Xuru Mbàkke la sëñ Thierno feeña foofu la feeñee jamono nee bi mu feeñee jamono sëñ Bay Jaxate ko tudd nee ma soxna Mbène Ngabou mooma jël. jox ma sañ Baye Jaxate mu tudd ma 1936 ca mujjantal ga loolu lay noonu soxna Xadi Njaay moomee nag moom la soxna Magan Njaay mii fi soxna Magan Njaay boobu mi ngi fii waaye daa doon gana ji foofee ca xuru Mbàkke war yàlla dogal loola amee foofee noonu ja ñuy wax ne soxna Ñang Njaay ñoo bokk ndey ak baay moom lañ joxoon sëñ Moodu Xari Ñang ci kër Ñang gi ngay dégg ci Touba moo jur ab taawam soxna Xadi Ñang ak soxna maam Asta a ak sëñ Amdi Ñaŋ waaw ñoo bokk ndey ak baay seen yaay ak yaay sëñ Ceerno ñoo bokk ndey ak kañ joxoon sëñ Mor Talla Fall nag soxna Xadi Njaay moo jur soxna Mariyamu Fall ak soxna Njaaye Fall soxna Njaaye Fall mooy soxna sëñ su mag sëñ Seex Fall Mbawor mii ci Tuubaa moom sëñ Ali mooy soxna Njaaye Fall sëñ Mor Talla Fall moo ko jur waaye yaayam mag yaay sëñ Thierno bokk ndey baay soxna Mariyamu mooy magam nag ñu yóbbu ko gol bi Njaay dénk ko sëñ Sang Njaay doomi sëñ Bay Njaay gol bi ñooñu ñëpp ay bokkale la sëñ ba jaar rek laa leen di leeral mooy nekk la ko yóbbu woon xuru Mbàkke rakk yaayam a fa ne woon yaayam jóge fii nag di dem di gañe ji fa yàlla dogal loola ame fa sëñ Bay Jaxate fa wala ne woon moo ko tudd sëñ Omar ko tuddi ko borom daaru ndax borom daaru ma gis sëñ Omar Ata moo ko jàngal seen ñaari bàyyi bokk benn bàyyi moo jàngal sëñ Omar jokk ab cër lool waaye sëñ Thierno moom ay wax ci moom la dul mën a ñàkk rek waaye daanaka amul luñ ci wax ndax moom li nga ci wax xam gi nag du mën a ñàkk ndax dégg nañ ay waxtaanam am na ñoo xam ne dañ ko dégg lool te bëgg ko lool te mosuñu ko gis am na ñoo xam ne dañ koo dégg lool bëgg ci wax nii xamuñu sax kuy waajur nañu dégg nañu naan sëñ Omar nangam sëñ Omar gelongal gelongal moom li sëñ Thierno ya ay tool la rek ay daaru sakoor la tudd daaru Sakkoor sëñ Omar ko tuddee woon noonu sëñ Omar moomee nag mooy doomi sañ Mbacke Ibra sëñ Mbacke Ibra doomi maam Bala Isa mooy caatu maam Maaram Mbacke moog sëñ Mor Anta Sali mi waajur sëñ Touba benn baay ak soxna Fatim Mbacke mi jur sëñ Mbacke bu sax loolu leer na kon koo sañ sëñ Thierno bu dee waajur mu jigéen it loolu ma leen ci wax rek sëñ Mor Ndiaye xërin Mor Ndiaye rek la tuddoon waaye junniy bërigo gerte yi daan bay di ko yóbbul sëñ Bamba sëñ Bamba ko tudde Moor Njaay Xaareen ay sate ma ngi Ndakaaru ko gi waaw yàlla defal leen teraanga waaye nit ñu baax te jàmbaare lool te jàmbure la nangoo liggéey nangoo jàmm yàlla te nangoo dimbalee te jub lool jaar siraata mustaqim te jàmbaar lañ de Moor Njaay Xaareen mooy seen maam mooy maam yi sëñ Thiam moo jur bàyyi ñooñee moo jur yaay sëñ Thiam ab xale ay ay ay doomam ne la nañ ma sët yaar ka ca mag mooy alaaji ma njaay njaay ca ndakaaru ñu siiw lañ sa baax lool ah, eh, ay njàmbur njàmbur lañ njàmbur njàmbur lañ waaye nag Mor Ndiaye moom li sëñ Tuba sëñ sëñ wax rek nee na daa baax lool 1911 la la njëkk a bayal sëñ Bamba junniy bëri koy gerte di ko def ba 1918 ndeysaan at mu jot rek yóbbul na sëñ Bamba junniy bëri gerte bañ demee ba 18 nag nee nañ la boole njaboot gaag gerte gaag ñëpp nag jëbal ko sëñ Bamba moom waaw loola daal ñu góor ñaa ñu jigéen ñi ak gerte ga ñëpp la jox sëñ Bamba ah murid la da ko kookoy maami sëñ Ceerno nag moo jur mooy waajuram wu góor kii mooy waajuram wu jigéen baax la ku bëgg lu baax la ku mën a doon rek boo ko nuyoo noo mën a sant rek dana wax ci yow wax ko ci sa maam wala sa baay keneen koy mën sa dégg ab sëriñ Mbàkke Mbàkke noo mën a sant loolu ko yàlla mayoon te lam lay wax lu wér lay doon lu wóor lay doon kon li ñuy wax moom ci moom lañuy ñuy yam yem foofa sëñ Omar moom li ma ci wax ci njëlbeen nga sëñ Fallou waxoon ko ginnaaw ab xalifa ma muy sëñ Mame Balla bi sëñ Thierno ne la ba daaw moo ci makat mi ngi fi nekk Touba waaye këram a ngi nii Daara ma ngi nii sëñ Modou Mbacke mi doonoon taawub sëñ Omar sëñ Amdi Mbacke mi ab xalifa am këram a ngi nii sëñ Omar yi moo ci mat kon loolu bu ñuy wax ci sëñ Omar moom. xëy na sëñ maam Ba laa cay wax baa ma joxe ca ndigal waaw bu doonee sëñ Thierno na nga xam ne sëñ Fallou mii mooy euh, moo mooy doom ju mag yi ànd ak ay rakam loolu moom lu ñu ci wax lool tañ xam ko lu mu néew na danañ ko ci wax ngir ngir ngir ndigal waaw sëñ Thierno la ñuy tàmbalee jëm ci loolu ñu ci wax daal mënee su ko cee weesu dégg nañ ay waxtaanam mi ngi fi du jeex kaset yaa ngi fi mi ngi ci rajo yi mi ngi ci téléphone yi. li ñuy wax lépp leeral na ko fa ne yàgg na koo leeral it ku xamul sa bopp koo mën a doon boo duglee waxtaan yi sëñ Ceerno da xam sa bopp boo xamee sa bopp ba noppi nag danga fonk sa bopp am murid nag ndigal rek lay jafe waaye benn baat waruñu ko woon wax noonu ci kanamu sëñ bi moonu mag fuuf nu raw fuuf nu gën a xam sëñ Ceerno li ñuy wax it moonu ko gën a xam waaye ñaari baat ñett nag yañ cay wax moom ci ndigalem rek lañ koy waxe gelongal moom sëñ Omar Mbakke mooy taawu sëñ Omar soxna Faati Mbakke ma ko jur doomi sëñ Tuubaa moom lañuy ñuy wax soxna Faati Mbakke pend Buya waaw soxna Penda Buya Ba mooy waajuram. yomb naa xam ndax ba mu feeñee foofee ba ñu jugee foofee ca kuru Mbakke ñëw fii fekk fi sëñ Omar ndax soxna Maguette Ndiaye mii waajuram dafa am ñu fi bokkaloon ne fii ci kër sëñ Omar muy soxna Faati Mbakke moom mi ma lay wax doomi sëñ Bamba waaw. waaye dañ ko féetale woon sëñ Omar Touba la ne woon mooy waajuru sëñ Modou Gelongal mi taawu sëñ Omar ak soxna Astou Touré muy waajuru Bas Gelongal ak ay rakam ak soxna Masata Gaye doomi sëñ Modou Gaye jamooy mooy waajur sëñ Maam Balla moomee dañ ay kilifa yu mag lañ ak soxna Soodu Sil soxna Soodu Sil moo ko sëñ Basiru ñu mbokk wenn waajur wu jigéen dañ ko nekkoon sëñ Omar mu am ci benn doom bu jigéen muy soxna Mari Yomb ñu dénkaat ko sëñ Muntaxa mooy muy muy waajur sëñ Koso ah fii de fii de dëkk bi waaw eh, eh, sëñ Thierno nag bi ñu jógee fii te mat a jàngit wax na ko ba tey nee na sëñ Omar man sëñ Fallou la ma joxoon 1950 lañ koy jox sëñ Fallou mu yóbbu ko Koso sëñ Mahamadan Koso ma fa ne doy maam Thierno Daaru Muxti moog sëñ Abdou Khoulous ak sëñ Modou Habib. waaw ak soxna Astu Ceerno mi sëñ Fallu yoroon mi waajuru soxna abi mooy maami sañ bi foofee lañ ko yóbbu woon wala jànge alxuraan jàng fa xam-xam defe fa lépp bind kaamil indi jox sëñ yëpp la mu a def lépp mu ko foofu bi sëñ Omar nelaw nag fekk mu toll ci foofee di jàng àggali am jàng ka def yëf sëñ Moodu Mbàkke gelongal mooy wala muy taw sëñ Omar moo ne fii waaye teewul da koo taxaw lool ba mel ni sañoo war a ngi fi mu waree jàngi mbirum àdduna ak génn xam taalibe ak yëpp sëñ Modou mbakki moom la àndaloon moo ko doon wan yoon wi di ànd ak moom di tukkee ko def yëf wala mën a xam lépp mu xam ko ci ba yàlla dogalee mu dem ba samp nekk fii it fii la dëkk de dem ci àll bi tukki dem ko di waar feneen ñëwit fu mu mën a demee day ñëwaat fekkaat fi sëñ Modou sëñ Modou fii la woon bi fi sëñ Modou jigéen ak sëñ Thierno ne fi sëñ Thierno fii la newoon waaye bi fi sëñ Modou yi ne nag sëñ Thierno fii la dëkkoon ànd ak sëñ Modou di lépp a rakki sëñ Modou yi li ma la wax ay am lañ ñoo ak sëñ Modou bokk baay waaye dañoo féeti woon sëñ Thierno mag waaye dañ fee néew rek kenn ko daa am fu ñu lay yóbbu sëñ Bass Gelongal moo ne woon daaru Darou Minam sëñ Abdou Karim moo woon Ngaay sëñ Mahmadan moo newoon Gosaas fii la ñu jógee ñoom ñëpp sëñ nag moo dëkkoon ak moom fii bi sëñ Omar nelawee nag bés ba mu jàng ba noppi sëñ Modou da koo jël indi ko fii di ànd ak moom loolu ma la wax rek di tukki xamante dem ci taalibe yi xam mbokk yi bu waree tukki tukki waaye bu waree ñibbisee ñibbisee bu ñibbisee fii rek lay ne du dem fenn tax ñu ne sëriñ Thierno Mbacke Guelongal loolu la ñuy wax tër bi yegg yi ngay wax it la mu waroon a wax na ko ba tey nee na la moo a def ci sëñ Omar ma xaw a rek di door a jógee ci daara jaak yooyu ak fekk muy door a nelaw yooyu yëpp nga xam ne moom laa waroon a defal sëñ Omar waaye booba yàlla daa dogal mu dem loolee nag yi sëñ Modou Mbacké laa àggalee lépp lépp lu ma waroon ci sëñ Omar ma war ko koo liggéeyal liggéeyal naa ko sëñ Modou Mbacké sëñ Modou mooy taawu sëñ Omar te waajuram mooy doomi sëñ Bamba kon loolu leer na muy ku baax noonu ma la wax soxna Maguette Ndiaye mi mi waajuram ni ñooñu ma la wax rek ñooñu la fi bokk doon ne fii te ñun ñëpp ci dë fii la ñëwoon ci kër gi ñu ko toog sëñ Omar Mbacké ne fii ñu ànd ab liggéey di bokk di liggéey liggéeyal ku baax ñun ñëpp muy sëñ Omar moom yi di rekke sëñ Bamba mu nampite sëñ Bamba gërëm ko loolu moom doy na sëkk sëñ bi amul leneen lañ ci doon waaw loolu loo xam ne ndigalu sëñ bii la waaye li ma la wax moo benn baat ni man wuruma ko woon wax damaa waroon a toog nii sëñ bii def nii rek di digloo lu ñu wax rek man waaw noon la demee de loolu rek laa waroon def waaye ginaaw sëñ bi ma ko sant nag danaa ko def ngir ngir ndigal li ak la ma la wax ci njëlbeen ko lu ñu ciy wax ak su lu mu néew néew lu wér lay doon ci sëñ bi lañ koy dégg baa ñu dégg ko feneen fu wér te moom la mu daan lu ma la wax moom lu mën a rek lu wér lay doon lu wér lay doon lu wér lay doon lu wóor lay doon ah sëñ Omar nee na sëñ Tuubaa nee dara la ko gën a rëy waaw ah, loolu te noonu la ay waxam noonu la noonu la nit ñi bëgg ko lool lim naan ay génn góor ci njaareem nee nag man du ma waxee noonu déedéet sëñ Omar nee na sëñ Touba nee na rek wala nag kooku mooy sëñ Thierno ku baax la ñaari waajuram yëpp noonu lañ baaxee waaye ñi fi bokkuloon nekki noonu lañ baaxee ndax sëñ Omar moom gis na noonu yi ma la wax kër gu mag gi noonu yi mu demee donc noonu la demee te ñoom ñooñee seen i doom a ngi fi seeni i ngi fi seen i ngi fi ñu ngi fi ñoo soxna Maguette Ndiaye moom ñoo bokkoon ne ci kër gi di liggéeyal sëñ Omar Mbacke moom yi ba yàlla dogal loolee am ca. nag ñu ngi sant bu baax nag ndax xam naa ni li tax maa ngi koy maa ngi koy door a def ngir sëñ bi waaye man du ma wax ci rajo loolu laa sañ bi léegi de du ma wax ci ab télévision du ma wax ci yooyu yëpp du tee nag ay histoire ak ci toog di waxtaan noonu guddi gu jot ci sëñ bi la ñuy toog di waxtaan di nettalante yooyu yooyu laay def waaye yorob rajo nii wala caméra mosuma koo def ci te sëñ bee tax waaye ak yéen yéen ji ngeen ci amoon bu yàgg ba tey ba yàlla di ko door dogal mu sotti tey loolaa tax ñu nangul leen ko sëñ Thierno ku ma sa woote ni ko dama faa bëggoon a ñëw de ah man la bisimilah loolu kay kenn ko ñëwee mun la nga waxtaan ak moom ba noppi mun la waaw ah, li lu mu boo ko ko waxee mun la ah, lu mën la ma ca xam laa la cay wax waaye lu ma la cay wax de lu wér lay doon lu wóor lay doon kenn du ko mën a dindi noonu loolee nag mooy lii rek kon ndigalu sëñ bi rek la ñu mbaa ndax moom it lu am solo la ndax ñoom ñëpp moom ay kilifa la leen defoon tey li ma la ci wax moo ci ne maanaam maam Balla ay sama ginnaaw mooy caatu maam Maaram taawloo maam Abdou Khadir Mbacke mu jël sëñ Mbacke soxna ak njabootam a ngi fi teg ci sëñ Mor Anta Sali muy waajuru sëñ Bamba teg ci sëñ Mbacke Jibril nag muy caat ma ji waajuru sëñ Omar mi ak sëñ a Fall Mbacke sëñ Omar am na mag a Amar Fall Mbacke ñoo bokk nday baay muy waajuru sëñ Abdou Khoudoss moom mi newoon Touba ak yeneen ak yeneen sëñ Abibu Mbacke mu baax moom mi newoon Touba waaw mi ngi noonu ca doomi sëñ Mbacke Kajoor yi lañ bokk waaye doomi sëñ Touba moom li nga ci di wax noonu la demoon ñoom ñëpp da leen a fonkoon defoon leen doomi sëriñ da a defoon doomi sëriñ ku ci ne seq na ak yow loo dégg nga li ma la wax sëñ Fallou foofu laa tàmbalee de ab taaw mi ngi ne sëñ Fallou la ko tudde ka ca topp mu ko sëñ Modou mbake gelaw sëñ Modou Gelongal sëñ Modou Moussa lañ ko tuddee kon lool leer na mi mii ñu tuddee ma sëñ Bass Gelongal sa sëñ Bass lañ ko tuddee moom mii ñu tuddee ko sëñ Soxna Saliou Mbacke moom mii ngeen di ñu tuddee ko sëñ Saliou Modou Mbacke magam am na mag de kooku Saliou ah waaw sëñ Modou Jang lañ ko tuddee ñoo bokk ndey ba ñu sëñ Modou Jang nga xam ne njabootu sëñ Bamba gi moom sëñ Mourtala ak ñun ñu ngi fi de. te ak njabootam lañ te ñoom njabootu sëñ Bàmba gi la moo tax ma ne moom da leen fonkoon defoo leen doomi sëriñ na sëñ Omar defoon noonu la doon def sëñ Omar moom wax ah nañu njabootu sëñ Bàmba gépp la meloon ci ñoom moom si gis rek day mel ne sëñ bu mag bi la jàkkaarloo cay la soxna yeeg ñëpp moo tax fii ngeen toog sëñ Thierno mboolem doomi sëñ Tuubaa daanaka ñoom ñëpp ñëw nañ fii seet ko fii fii ngeen toog nii sëñ Muntaxa Mbàkke mii di xalifa bi di sëñ Thierno tuddee na ko doom xale bi yàlla defal mu dogal la ca gën keroog ba suñ mën taxaa taalam otom di ñëw di ko siyaare fii la ma fekk keroog fii ah waaw fii la fi ñëw kenn xamu nu mu toll 2018 bi sëñ bi nelawee bi sëñ bi sëñ tukkee ba ñëw wéerali gi yaram mi xaw a sotante sëñ mën taxaa jóge na Tuubaa ñëw fii seet si ko xam nga ah waaw ci xalifa général de Mouride gii ah ñëw na fii de seet sëñ Tuubaa la jóge julli seulement rek du ko ci suba rek taal oto ñëw si yàlla si ko <laughs> sëñ Muntaxa daa baax lool kenn du moom ndax moom ñëpp la yemale te waa gelongal kër sëñ Omar moom dañoo am ci moom ay cëri cër Mbàkke Balla ah waaw loolu ma la ndax loolu sëñ Jeennaa ki jur ndeyi sëñ Omar ki jur ndeyi sëñ Basiiru ñu bokk benn bàyyi loolu soxna Soodu si li mii rek sëñ Basiiru ñu bekk benn waajuru jigéen joxoon ko sëñ Omar ku jigéen ki ci kam ci am ñu yóbbuwaat ko ko sëñ Basiiru xam nga lool dafa doy waar lool sëñ Basiru di doom ci sëñ Omar teg ci waaw yooyu yëpp di ay mbokk yoo xam ne ni dafa jaxasoo waaye teewut moom loolu lépp xamoon na ko ràññee woon na ko te lu ci ne na doon na ko doxalee nam ko war a doxalee doomi sëñ li ma la ci wax ay sëriñ ay doomi sëriñ la leen jàppe woon noonu sëñ Omar meloon noonu la meloon moom ah loolu kay yow ko te wax nga ko borom fi loolu rek la ndax loolu sëñ Ceerno ko daan nettali xam nga waaw ah sëñ Ceerno a yor yorul àllarba rek la fa xëy moom sëñ bu mag bi jóge fii ci jumaa ja dox wuti foofa boobu diggante bi daa sori lool am ñaxum kese la ak dimba fa ne woon xam nga foofu boo duggee ci kër gi rek dimb fa ne woon dimb ga yàgg na fa lool ah man mi fa laa doon jànge de yàgg naa gis dimb waaye boo waxuma lu mu ah ko ab tabax nii yaa ilaahi yàgg fa lool ndeke booba sëñ bu mag bi foofu la xëy bind ñetti alliwey xànjar ah ndeysaan baax bind jëlam si bind jox leen ko nag ñoom ñoo ñoom ñetti ñoo kenn ku nekk nag mu di la waxal moo leen doon sax di li ñuy wax sax bind la ba noppi di la wax naan baa siin miim ñoom ñett eh, wax ba mu yàgg mun leen ñu ne teg mun leen baa na ngeen baa na baa da ngeen nangoo jàng ñu ne teg nangu leen a jàng bu ngeen nangoo jàng de gaaw gay xam ak bañ ngay fàtte nekkul ci yéen ci man la ne te danaa ko def ci yéen mooy mooy ñett ñooñu nga sëñ Tuubaa mel noonu rek yow nag li ngay laaj yaa ma ko gën a xam moo moom sëñ Fallou mii nga ko waroon a laaj ba ba yaa ca des la jëm ci sëñ Omar nga ne ah! <laughs> na yoo xam ne moom moo gën a xam de dañuy bu baax a baax sëñ Fallou eh, leen sant yéen it sant noonu ma wax rek kër goo dem daal am na kilifa dëkk boo dem am na kilifa eh, naa ko sëñ Omar lañ wax moom njabootu sëñ Omar a ngi fi am na ko nekk ca boobu mooy sëñ Maam Balla Mbacke moom yi nga xam.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 في كل سهر وفي ظفر حماني ألا ماهن ما الأبصر السفر